de dëgg impunité à mm. tous les niveaux parce que le président Macky Sall daaw euh, defoon une déclaration wax mm. ni euh, école nekkul combat de boxe. nekkul mm. combat de ring nekkul combat de de gladiateur. Euh, bërëb bu ñuy sàkkoo xam-xam la. waxoon na ni dinañ jël ay mesures mais ba fii man gisuma après mu am ben suivi parce que li am ci école yi. dafa doy waar ay violence yoo xam ne ay xeetu pratique yoo xam ne. mënu ko expliquer xëy réseaux sociaux yi loolu la ñu mais da nga ciy gis ay pratiques yu gën pire fan le passé aussi benn vidéo boo xam ne mm. xale bu ndaw la ñu ëffal mm. ak benn xar mm. xar bi di mbëkk xale bi xale bi di fayu hmm. bu xale bi fayoo jugaat xar bi mbëkkaat ko waaj di ko ëffal et puis am ci plaisir bu doy waar boo xam ne ba pare partagé ko ci réseaux sociaux yi hmm. muy ay phénomènes yoo xamante ne nii képp ku xeex ak ak yelleefu doomu aadama hmm. da nga ci war a addu mais ñu jël ay sanctions parce que booba léegi ñu ngi wax ni réseaux sociaux yi dañu war a sanction dañu war a sanctionné mais gisuma sanction yi nga xamante ne nii wax dëgg yàlla war nañ ko teg ay nit am na ay vidéo jaamur ñu partagé am nañu ay ay ay ay ay nit yoo xamante ne nii wu nañ seen sutura te booba léegi si gisuma ñu jël ay daan yoo xamante ne ni dafay nekk exemple ci askan wi ba ñu xam ne nii ku def lu ñaaw dañ ko war a réprimer li am ci école yi nag euh, pour jeexalee foofu mhm. parents yi euh, wax dëgg yàlla dañ leen di soññ à chaque fois te lu ñu leen soññ doyul mhm. nañu gën a euh, xool seeni doom mhm. gën a vigilant seeni doom bañ leen a jàngal tamit yenn yi nga xamante ni moom mooy nemmeeku ci ci école yi parce que école yi dafa dem ba xale yi dañuy di boole à chaque fois parce que da nga ciy déglu dé léeg-léeg ay renseignements yoo xam ne xale yi dañuy dem di boole bu ñu administration bi dina jël ay mesures. Mm. mais lég lég xalé bi euh, dina dem ba affaire bi après ci école ba lay génn te daf mm. koy traumatiser psychologiquement parce que xalé bu fekkee dafa nekk ay bir morom ñun napp ko loolu mën na dem ba indi sax ay ay ay mauvais day am ay conséquences ci ay mm. résultats scolaires am donc xalé yu bëri ngi ni tey ji nii ñu laaruñu bëgg nañu jàng mën nañ jàng mais ca fa ñuy jàngee lañ leen teg loo xamante ni nii nañu ko te peut-être seen parents yi duñu wax ak ñoom te loolu la ñuy wéyaale ba dañuy dem ba nekk mag finalement après fa la seen cursus scolaire di yàqu

lu ci am solo la mais nag réseaux sociaux yi bi mu ci bokkee ndax mag kenn du ko weer ci pénc ay duma duñu ko nettali euh, tey am na ñu nekk ay xarit intime ba tuddante doom mm-hmm. te seen xaritoo ngi jeexee taloo ci kenn ki gañe kenn ki ci xeex kenn ki euh, ticceeku loolu wala fi dox ticceeku gañewaat ko duma ko ba mu ragal ko ba ñu mujj nekk ay copain mhm. ba dem a dem ba mujj mu nekk copain intime ñu màgg ba tuddante ay doom mhm. loolu am na fi kon donc du lii du du du loo xam ne lu bees la mhm. mais nag am na yenn ci ay organisation yi sàkk ñu dàq leen est-ce que jar na ko non euh, dàq xam nga xam nga conséquence mooy mooy conséquence réseaux sociaux parce que violence aussi kenn mënu ko cautionné. parce que bu ko ñëpp seetaanee rek day daal di tudd violence mais xeex ci ay xale lu musoon di am la bi ñu ko filmé nag diffuser ko partout. je dans le dîner di parce que yow li ngay am yene moy fekke ko até mhm. té mëno ko fekke parce que passé na té mu ngi beesaat ci yow day mhm. dal di violence bo xam fay des ci xel yi mhm. xalat yi eh, li arab di wax eh, tata baadar wa tata lahu ala al azhan fi kulli sabihatin wa duha manam chaque jour day beesaat ci sa xel chaque jour di répéter waat répéter waat donc violence li tudd foog mu am ay sanction nak Mohamed foog mo am sanction parce que violence la dina jangal ñi ci dess mais mais xam nga ni ci xaw doy waar bu ñu sanctionné ñaari xalé yi mais yeneen xalé def nañu lu raw euh, xale yi yi <laughs> mm-hmm. filmer diko partager partout dans le monde. Mm-hmm. fan la mujj. ñaari yu am 15 ans di xex filmer ko. Mm-hmm. ñaari 18 ans ba 25 ans. ñu jàppandalal leen appartement ñu ko di sey di filmer te amul ben conséquence tax il faut ñu il faut itam ñuy tek ci balance quoi souvent wax yi bañ a dem bañ a émotion ngir mëna toucher la réalité. parce que mënoo sanctionné xalé yu góor yi xeex te sanctionné woo ay mak yu eufal ay xalé ñuy banante ñu di leen filmer ñu tas ci réseaux sociaux yi. te mu jul fenn. bu dé dañuy bu féké donc luy gañ société yi la bëgg. Mm-hmm. moo tax nag faaw ñuy téy souvent parce que dof bo gis ci kër la génné mm-hmm. saa bo nekkee ci benn organisation bu la permettre nga demander ñu sanctionné doomu jambour mm-hmm seetaan nga ku la gëna a jige def lu raw loolu te demandé wuñu ñu sanctionné ko et puis ban ban pouvoir nga am pour demander ñu sanctionné ko dafa xaw sensible de mm-hmm. bo topé émotion da nga naan nañ leen tecc na leen dakh na leen dakh mais est-ce que xex jar jarna mm-hmm. sacrifier avenir xalé

ay fan mo dess ngir ñu waajal korité ñi yëngatu ci walum jaayum ginaax dañu gis ne fu ñu tollu ni prix yépp a yokk bi amna na 3500 3000 amna ba 4000 4500 daal ça ne dépend ci ginaax nga bëgg rek ak ginaax mo ci ci Sénégal ginaax lañ mënta gis ci Sénégal fi mu toll ni es bi seer na sax ak jafé gis torop sax waawo ci all bi ñaata ngay jaay 2750 3000 poulet de serre emplois de pays 4000 5000 aliment bi waaw léegi moom dafa seer lool daanaka 20000 yi boo ko joxee li ñu la ciy delloo du bari quoi. ñii di borom kër yi sax dañoo jaaxle ginaar ba doon jëndee léegi ñu ngi koy jëndee 4000. jaaykat ak client ñu ngi woo gouvernement bi nañ leen jàppale ñu wàññi prix yi. daal bu ñu mën a wàññee ginaar yi moom ins bi moom dina baax ak élément bi pour ñu mën a dugal poussin yi waaw foofu daal moom bu ñu ko a wàññi moom dina baax trop ci ñun. naam mu dimbali ñu si ciw xam nga ciw bu ñu baree rek gars yi danañ mën a dugal mais bu cuuji manqué rek looloo waral mettiwaay bi nii quoi loolooy fat an suñu président Macky Sall di ko wax mu jàppale ñu wàññil ñu dund bi sonn nañu waaw loolu daal lañ bëgg prix yëpp a yokk rawatina prix aliment bétail yi mi ngi noonu ginaar amul lu bari te cher na lool bu ñu sukkandikoo ci président fédération ëmb acteur yëngatu ci wàllu ficteur filière avicole bi ne ci Sénégal moom nag nee na loolee li ko waral du lenn lu dul jafe-jafe gi ñu am jëm ci wàlluk filière bi lu jëm ci li nga xam te ni moo di contexte bu ñu nekk muy en tout cas liggéey ko yombatul te it lu jëm ci wàllu aliment de volaille cher na lool jamono ji en tout cas gis na sax ñenn ñi nga xam ne yëngatu ci ay couveur ñoom ñëpp danoo nekk en faillite moo tax euh, Sénégal amee jafe-jafe ci wàllu ginaar ci bu ñu nee euh, ay fan rek des ñu dem ci korité euh, ñu teewlu ci président ba di Serge Sadio ci micro Simon Faye ginnaar dina am mais damay ragal mu xaw a ñàkk doy situation yi ñu dund ci filière avicole bi fan yi ak euh, at yi ñu génn moo waral euh, lu ni mel ñetti yoon jonkonte nañu ak ay hausse aliment volaille contexte mondial bi ak euh, crise bi en Ukraine industriel yi ci seen bopp dañu am problème pour jot ci intrants yi ñu soxla pour defar seen aliment acouveurs yi tamit ñu ci bëri tey tëj nañu parce que tout simplement amuñu produit yi ñuy donc yooyu yëpp def na korité bi prix yi yokk na loolu moo waral ñu ci bëri aussi ñi doon consommer ginaar seen nombre yokk donc loolu mooy waral affaire bi xaw juste mais ginaar dina am mais que c'est assez difficile situation bi aussi dina revenir à la normale fii euh, bi passé maintenant ñu ngi que autorités jàpp ci aussi pour que situation bi gën a mais c'est assez tendu mi ngi euh, day demee mu mel ni sénégal yi dañoo nekk ci dilemme jeexi jaaxa ndax euh, ginaar amul wala bu amee bariwul te cher na lool euh, bu ñu bëggee dem ca yàpp wala ndawaloo itam gis nañu ne dafa cher lool en tout cas mu mel ni korité bu métti la ñu nar a dund nee nañu. tout est cher Mohamed marché bi si boppam moo métti même li li ñu yaakaar ne dund baadoola la muy këccax. Mm-hmm. moo gën a cher. <laughs> Eh, wallaay tey jii nii pour nga am jën bu baax. <laughs> mi ngi noonu <laughs> tey jii nii nga dem marché.

xëtt barrière yooyu nga xamante ni je peux dire bloqué mm. importation de poulet de chair boobu di dugg si donte mm. fii ci dëkk bi c'est une réalité am na problème maintenant nag aujourd'hui loolu le directeur euh, de de l'élevage il est passé defoon mm. na benn sortie bu am solo wax ne ñu ngi ci def seen kéemtalaay mais maintenant dama jàpp ne nag war nañu liggéey en synergie ak yeneen secteur su ko defee ñu jàppale askan wi su ko defee marché bi parce que chaque année Corité, euh, Mohamed boo seetloo ce sont les mêmes préoccupations qui reviennent bu teyee ñu le soble bu subaa ñu